sëriñu daara yi ñu leen di woo kenn par kenn ku ñëw ñu jox la sa bon ngir nga mën a jot ci ceeb bi mu ngi toll ci téeméeri tonne ak juróom fukk yoo xam ni sëriñ Mboup moo ko fas yéenee seddale ci dëkk bu sell bi di Touba ci sëriñu daara yi ak kilifa yi. aujourd'hui on se dañu fee daje woon euh, fii ci Touba ak euh, sëriñu daara yi ni nga xam ne noonu laa ko baaxoo di defee saa ne. muy euh, yëkkati ak dund jébbal leen ko mu toll ci euh, téeméeri tonn ceeb ak juróom fukk yoo xamante ni juróom fukki tonn yi dañ koy jox euh, rabilatu alxuraan bi nga xam ne sëriñ xaali jaxate moom moo leen jiite beneen juróom fukki tonn yi am na beneen mbootaay goo xam ne moom lañ koy jox yeneen juróom fukki yi man ma seddalee ko sama bopp kilifa yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi di Touba. dëkkee may nit ki jën jàngal ko nu ñuy nappee moo ko gën la sëriñ boobu xamle moo tax mu am projet bu mag boo xam ne moom la fas yéene taxawal mu jëm ci accompagner daara yi ngir ñu mënal seen bopp. danañ lancer benn projet Kaolack boo xam ne nii objectif mooy ay projet yoo xam ne nii daara yi danañ mën a dañ leen mën a jàppale ba nga xam ni ci wàllu mbay mi ci wàllu sàmm ki ci wàllu boutique ci wàllu lépp danañ mën a am loo xam ne ay revenu yoo xam ne dañ leen mën a yor. te loolu je pense que Serigne Sidi Niang mi mën na ci joxe exemple ndax euh, ci ñi nga xam ne ni yàgg nañ ko def waa la dama ko daggaloon ci ay tool waaye alhamdulilah mi ngi ciy bay bu baax loo xam ne ni ma ngay yor daara ji te yaakaar naa daara moom euh, jàngale alxuraan ak liggéey ñaar yooyu la boole kon loolu dama ci ñaax euh, ñi jàngale alxuraan yëpp ñu continuer ci jàngale alxuraan bi farlu ci mais jéem tamit jéem dara loo xam ne nii ku ko def da nga ci am autonomie da nga am indépendance te yaakaar naa bari na ay kilifa yoo xam ni tey ci loolu lañu nekk. suba soo xëyee may la jën jàngalalooy nappe moo ko gën ba tax mu am projet buñ ci initié ak mbokki daara ya nekk ci Kaolack tamit lu am solo loo xam ne eh, phase test la waaye yaakaar nañ ne bu réussiree dana yaatu ci biir bi incha allahu yeneen daara yi dinañ ci roy eh, yàlla na ci yàlla def barke ba mu sotti nu raw sax nañu ko xalaatee. mbooleem sëriñu daara yi sant nañ bu baax a baax sëriñ Mbuub ci jëf ji ñoom ñuy xam ne ne lii dugg leen ñu koy jot ci sëriñ Mbuub ndax li mu leen di defal lii moo ci gën a tuuti. Euh, tey ñu am mbégte dajeewaat fii nga xam ne jëkkuñu fee dajee tey euh, dajee fi ak sëriñi daara yi dajee fi ak sëriñ Mbuub taxawaay yi nga xam ne yàgg na koo am ci daara mu di ko jëmmalaat bii di ci benn muy dimbale daara yi ci wàllu dund. waaye yàgg na leen dimbale ci wàllu nekkuwaay di leen dimbale ci lépp loo xam ne seen itte jëm na fa ni ngeen ko waxee lan li eh, jaare ci ñun jëm ci rabita bi li ci des jëm ci eh, jaar sëñ Mbàkke li ci des moom di ko jox kilifa yi kon loolu di lu am am solo mooy li ñu dajale fii ñu ko ciy sant bu baax di ko ñaanal suñ borom yokk fanam dolli ko wér waaye dolli ko kàttanal mm-hmm. ndax koo xam ne saabu bu dolli koo lislaam moo dolliku képp koo xam ne diine ñor na la eh, loola dana la yitteel sëriñ ko am yéene la ku xam farata la saabu bu seqee jéego wala mu àddu di wax farata mooy tax mu wax man ku ko xam la ku ko jege la ku am yërmande waaye nag bul ko wax mukk loo xam ne xel nangu ko sëriñ dafay jëfandikoo li alquran naan yaa ulil albaab ci fàttali jëf ji Serigne Mboup ba mu ko tàmbalee def ak léegi ëpp na fukki at ak juróom muy jëf joo xam ne waajuram wa Alxaaji Baara Mboup moo ko daan def mu royeek ci moom di ko saxal ci jotaay bi sàkku nañ ci Serigne Mboup ci forage bi nga xam ne moom la liggéeyoon ci quartier bi nga xam ne moo nekkee ci Cham ci Touba ngir mu taxaw leen ñu def château d'eau ci boobu le forage mu xamal leen ni dina ci taxaw